di leen jaajëfalaat bu baax a baax saa su neen ñi nga xam ni yéen a ñu topp à travers <clears throat> toutes nos différentes plateformes rawatina yéen ñi nga xam ni yéenay topp borom xam bi rawatina yéen nga xam ni yéenay topp kilifa gu mag gi rawatina yéen ñi nga xam ni yéenay topp sëriñ bi nga xam ni jàngale ak jàng rek moo ne itam biñ ko xamee ba léegi mooy sunu papa oustaz Iran Ndao oustaz ñu ngi lay nuyu te di la baalu xaq ci julli gi talay tey baalu xaq mbooleem ñi seetaan. mbooleem ami internet yi ñu ngi lay nuyu lay delloo nuyoo di la fay di la baal àq di nga ñu baalu àq ñun itam noonu lañ lay baalu àq di baalu àq ñuy jàkkaarloo ñun di leen baal àq ñoom itam ndax dama am benn wóllëre boo xam ne soo ne ko baal màq mu ne la baal màq nga ne ko baal naa la mu ne yàlla yàlla boole baal mu ne ko baal naa la mukk man nag ma jàpp ko ci moom mu ne ma baal maaq ma ne ko baal maaq mu ne baal maaq ma ne ko baal maaq mu ne waaye dama ne nga baal maaq ma ne ko muy dama ne nga baal maaq mu ne ma xanaa di dañ la sama affaire ma ne ko ci lan mu doog a wàcc nag loolu dafay am eh, te amul solo amul solo nag mm-hmm. macha allah amul solo kon ñu nit baal na leen na ngeen fexe ba baal ba rek alhamdulilah oustaz yaakaar naa jóge nañu ci tabaski waaye mu mel na def nañu euh, li nga xam ni digle suñu borom sunna si waaye mu mel na am na xew-xew aussi bu ci xew muy benn imam bu doon jiite ñu song ko ak paakat wax fa dëgg yàlla mu mel na nag tiitange jot na suma juumu gis nga vidéo bi ak yan jàngal nga ci am ah aw ma ci benn jàngal na moytu rek <laughs> na jiite ci moytu baa mu bàyyi jiite rek Seydina Omar ibnul Xattaab ci min baram lañ ko reye ñetti paaka lañ ko dëbb te taxul subhaana rabbil ala bi mat bi matee la doog a jóg mënatul dem Ali ibn Abi Talib alxemes ci fajar guddi ajjuma la jëm jàkk ji ci lañ ko ci la ko Abdurahman ibn jaas ci bopp mu xara Seydina Ousmane ci biir këram lañ ko fekk sol masque rey ko ci sóoratu Nóor da doon jàng alxuraan léegi surtout noonu ñu rey ko jàng jàng ni ci xaaju Seydina Ousmane Seydina Ababacar ci lañ ko fekk diine moom bu la ci kenn nag di nga ni nga paree pour julli noonu la nit paree pour rey nga préparé pour julli noonu nit ki préparé pour rey la loolu moo amul benn werante moom kay xanaa moytu rek ak euh, jël say matuwaay ak fogoru rek waaye loolu moom fa lañ fi lañ ko fekk dee ci min minbar dee ci yoonu jàkk dee sa ci yoonu jàkka waaye mu mel na nag wax fa dëgg yàlla euh, tiit war na am buñ demee ba réewum Sénégal réew ñëpp jàpp ni réew mu baax la ba imam bu taxawee ci min minbar di jiite fitam du dal tiit nag wa oustaz ndax it bu bu fekkee tamit dañ ko euh, méngaleeg jamono bi ñoom Seydina Omar xëy na boobu sax jullit gi demeewutoon noonu yéeféer gi nga fi woon mais léegi mu mel na jullit gi ak doole gi nu am envergure gi est-ce que tamit wax fa dëgg yàlla ñi leen rey julli lañu ñi leen rey julli Abdourahman ibn Maljam julli la Fayrouz julli la ñoom ñëpp Seydina Ousmane ñi ko rey ay julli lañ jullit euh, yàgg naa def lu ne li la wax rek ci li ñuy tiit amu fi c'est la première fois ñu gis élimaan ñu ñuy ñu ñuy bëgg a rey di mm-hmm. kon lu élimaan yi tiit buñ tiitee daan nañ bàyyi mm-hmm. waaw ñeneen jiite rek waaye lii moom moo diinee ànd rek waaw moo diinee ànd euh, dem rek ah nga gis koo xam ne day dem ñu kar ko rey ko kar ko rey rey ko nii ti du am daal benn benn jeexital loolu loolu lañ ko fekk waaye nag bu ñuy jël ay matuwaay ak ay nañ def nii ak def naag réew mi fi mu ne eh, nit ñi dañoo a tiit ak ndax élimaan dañ leen def léegi def daara daal nañu jiite te ànd xel mu dal te wóolu yàlla xel mu dal ci wóolu yàlla soo di jiitee ngir yàlla ni ko yàlla musali la luy musali waaw soo jiitewul ngir yàlla nag léegi yow yaa xam ndax euh, Seydina Omar dañ ko rey ñetti paaka lañ ko dëbb waaw lu tax yàlla xamalu ko ak Omar ni mu baaxee di amirul mu'minin yàlla xamalu ko ne sàppe bu njëkk am na ko ci yor paaka am na ko la ci war a rey loolu xamu ko su ko xamoon nu muy def mu fekk jam nañ ko benn paaka tip mu ne subhaanallah subhaana rabbil waa ji dolli beneen paaka mu ne subhaana rabbil ala waaye dolli beneen paaka mu ne subhaana rabbil ala jóg naka la jóg rek paaka bi jàpp ko moo daal di terteri daanu ñu ñu laxas waa ji daal di koy karkaral noonu jàpp ko yeew ko ci kootu yàtte ji léegi moom texe na parce que rey nañ ko ci yoonu yàlla fi sabilillahi lañ ko rey ci yoonu yàlla lañ ko rey kon kay baax na ça va alhamdulilahi rabbil waaye nag ay nit ñu tiiteeg fi jamono tolloog ndax ku gis ñu ñu gaañ élimaan ak ñangam dara moom daal ku wóolu yàlla doxalal ku wóolul yàlla arrière xam ne boo waree dee ci jaasi da nga dee ci jaasi paaka da nga dee ci paaka soo waree dee nii da dee dee moom ala kulli xaalis bu sa jot eh, bu sa eh, date jotee nga dem mhm. bu datam jotul mu dem waaye élément datam jotul jeexalul kon kay na sant yàlla rek moom ci biir julli gi mu mel na bi waa ji bi ko waaj dikkalee moytu na am nu jàpp ni bu gëmoon yàlla du moytu est-ce que tamit noonu ngay tax déet eh, bu yàlla du moytu pour lan ci biir yàlla ne xuzu xisrakum nga yàlla du moytu uh-huh. jël leen seen matuwaay ti ngeen moytandeku mm-hmm. xuzu xisrakum mm-hmm. nga gis paaka buy ñëw nga taxaw taxaw taxawal ñu ko wax ne ñëw julli mm-hmm. ah mi ngi ñëw taxaw rek paaka bi ñëw ndax naa duñ leen ko dëbb ñu dee ñu xam mm-hmm. loolu du wax xuzu xisrakum suñu borom moo ko wax mm-hmm. jël leen seen matuwaay ci lépp lu mën a doon jël leen seen matuwaay voilà bu ko gisuloon na ragal na yàlla ma ragal na yàlla ragal yàlla nit ñi moom kenn xamu ko moom rek moo ko xam waaye ko dem ba nekk imaam ni ci kanamu nit ñi jiital la am nañ ci yow ragal yàlla boobu yaakaar naa voilà macha allah kon yaakaar naa ni tabaski bee ngi noonu xew-xew yee ngi noonu mu mel na wax fa dëgg yàlla xam naa tout euh, maa ngi ciy euh, collaboré ak sama confrère de télé de télé Sénégal moom it aussi saa yoo ko yëgee rek mën nga ñëw oustaz mu mel na xew-xew bi fi doon am sur le plan politique la dugg kii di le président de la république Macky waxoon na buñ ko ñaanee ci njekk mu bàyyi troisième mandat bi ñaanoon nga ko ci njëkk <laughs> waaye mel na bàyyi na ko ci njëkk waaye. ba léegi euh, réew mi la jàmm mënagul am ba léegi ndax ba léegi bu fekkoon ba mu waxee coow li waroon na arrêté pour man waaye ba léegi mel na coow li des na lan nga jàpp ni mooy tax ba léegi coow li des. coow li fa mu des. opposition bi waaw. dégg nga ñoom ñuy xam leen ni kat dunu noppi benn yoon ndax yi sañ naa dellu saat ci kàddu yi. waaye loolu loolu góor du ko def. Hmm. nit ñi dinañ ko bàyyi. Hmm. nit ñi dinañ ko bañ. Hmm. te nit gis nga gannaaw moom waxoon na ne du ma def troisième mandat ñu topp ko mu ne du ma wax de jotu ko ba waxam jotee mu génn génnaat ne leen duma ko def waaye kay nañ jàpp ci li wax waaye dem ba mu yàgg mu delluwaat ci ginnaaw boobaa ngeen ba ko réew mi man daal li ma xam ku def lu baax ñu ne la waw góore waay jaajëfe waay waaw kay gis nga Macky doful Macky xam na ni nit ñi mhm. ay workat lañ Sénégal mhm. dafa am ñoo xam dañoo foo mhm. dañuy coowandoo di yuuxoondoo di waxandoo waaye gëmuñu dara dara dara dara soo leen xamul nag du sotti Macky daal war naa peser natt ay nitam démb ak niti teem ba xam lu mu ko jox rek mu xam peser na nag gis na li mu gis li mu baax na moom moo wax ne troisième mandat duma ko def mhm. lu ci desati kon kay mu ngi suñ kanam mhm. du ko def noon na leen waxuma dara duma wax du def dara mhm. dem na ba mu yàgg mu wax ba wax jotee wax na lam waxoon def na ko léegi nag jaajëf Macky daal moo ci ba moo ci yow jaajëf Macky jërëjëf Macky jaajëf Macky lii rekk ci jekk amul leneen nag góor daal ca wax ja alxorru xorroon maalam yatakallam mm-hmm. gor bu fekkee ne waxagul mm-hmm. gore na waaye bu waxee nekkul gor tànk deful la mu wax mm-hmm. def na ni wax jeex na ana makki nag nit la nag Macky ñëwee naa wax wax wax ji waxaat leneen wax di def leneen loolu du ko def xelam xalaatu ko waaw nag nit ñi dañoo doy waar nañ ko jaajëfal jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw jeex na loolu rek moo ñu ci war ndax nit bu waxee lu baax baa mu def lu baax jaajëf waaw ko kii dem tool du dégg jaajëf boo demee doo ko dox jaajëf kii demul tool doo ko ah, ah, ah toog seetaan waaw ah, mu ngo sooy dem tool romb euh, fekk tool bay nga ne jaageen jëf waaye jaageen jëf jaageen jëf jaageen jëf waaye ñu bay ne na ngeen def ngay wax na def ngay wax ndax defuñu dara waaw waaye ñu ne ci tool yi kay di góorgóorlu da nga naan na jaageen jëf waaw nag góorgóorlu na moom daal la waxoon def na ko jaa jëf man laa ci xam jaa jëf man nag man yàlla daf ma bindee man sama décision kenn mënu koo jël man lu ma xasan matt dinaa ko dagg waaw man loolu la ma yàlla bindee dëgër bopp moom wax dëgg yàlla moom def naa ci tuuti waaw tuuti moom def naa ko tuuti rek waaye waaye yow luy luy loolu yow sa gis-gis gi mooy Macky day dellu ginnaaw nu dellu ginnaaw si yow mm-hmm. waaye kii taxaw wax télévision wóor ko adduna bi yëpp liir yi sax xam nañ ko mu xëyaat taxawaat waaye loolu loolu ko def adduna bàyyi na ñëpp lay bàyyi bu boobaa nag mu gën a neex loolu du wax nañ leen bàyyi rek jërëjëf Macky jërëjëf Macky jërëjëf Macky ñoom lañ la ñuy ragal mooy mu bañ a dem waaye yóbbaale Sonko ni du dem kañ dem doo dem du du ma dem doo dem ñoom la ñuy ragal dëgg-dëgg Macky daal li ma koy ñaan hmm. te di ko ko ñaan hmm. te ko ñaan ginnaaw jaajëf yi na baal Karim baal Khalifa Sall baal Sonko wooyu mat wooyu mat sëkk na lu mu koy jëriñ xanaa xamoo ne léegi léegi léegi ñu di ko nettaliwaat ay at rek yàggul Macky bi bi faloo léegi yàgg na ah, ah, yàggul yàggul lii yàggul kon Macky boo defee aw way ba nit ñi euh, ñi baax wala ñi am xel mu rafet ne di nga def baax na baax na fexeel daal dimbaleel Karim xalifa Sall sonk ku la di ñooy yor réew mi réew mi yàlla mooy joxe nguur te yàlla waxagul kan la koy jox est-ce que bi Macky bi Macky Sall waxagul dara xam ne xam nañ fu ñu jëm waaw ah, lañ xamaloo daal yàlla nag yàlla du wax allahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka mi man tasha wa tuizu man tasha yàlla ko yàlla ne nguur maa ko moom may jox ku ma neex mu jiite yoo xam nga ni nguur du caaxaan ku ko yore du yoroo caaxaan kuñ ko jox nag maa jox nguur maa koy nanguwaat bu jeexee ma jël ko jox ko keneen waaye yàlla kuñ ko mais nan lañ bàyyi rek Sonko ak mbooloo mi koy topp mu mel na ñëpp ragal nañ ni kat bu demee élection kum ci mën a demal midi mu tàqalikoo ak yow mu mel na ñoom loolu lañ gëm te moom Sonko xam leen na ni bu toogee day tëj ci nga xam ni mooy Macky day tëj ay mbokkam wax na ko carrément ñëpp dégg loolu tamit est-ce que Macky du jël ay devance ak jël devance ak lépp ku def lu rafet am lu rafet ku def lu rafet am lu rafet na def lu rafet rek def na lu ñëpp rafetlu wala boo ngeen ñi rafetlu nañ ko na def lu rafet devance bu mu mën a jël bu yàlla dogalee dana ko jal bu yàlla dogalee loola dana ko dal su yàlla dogalul du ko dal moom daal na ko baal baal Karim baal xalifa ñu dem ci terrain bi ak ak ñu ci des na mu bañ laal kenn ñëpp dem ci terrain bi rek wuti comme baax na xam nga yàlla yàlla dafa doy waar yàlla ay mbiram kenn xamu ko mm-hmm. feebar amul dee newul. handicapé nekkul. kenn nekkul. mën na koo teg. mën na ah? koo teg mën mën na koo teg. mën na koo teg ah. Mhm. mën na la koo teg ba doo dem. Mhm. Ah. mën na koo teg ku mu mën a doon. mën na koo teg xalifa mën na koo teg Karim mën na koo teg Sonko mën na koo teg eh, ñëpp ñëpp ñëpp. waaw bëggoon naa ko Déthié Fall ak ñëpp. kenn ku ne mën na laa teg loo xam ne dootoo dem. Mhm. da ngeen di xam calculer leen yàlla bàyyi leen calcul bi ngeen def bàyyi ngeen ngeen bàyyi xel yàlla mm. yàlla muy mbir mi mm. yàlla bu ngeen ko jëlee def ko seen mbir muy muy mbir mi wallaay su ngeen ko deful seen mbir ngeen xam mm. waaye yàlla rek yàlla rek moom daal Karim daal Khalifa Sall Sonko na leen sarax ngir yàlla baal leen ah bugaan bugaan bugaan pare naaj leen koy téye moom it ah bugaan kenn du ko téye xanaa bugaan duñ ciy téye <coughs> Bougane moom mel na bokk ñaari élection jot na ñu téye ko ni ko doo dem ci wàllu parrainage. loolu nag de man nga xaw ma ci dara moom daal na leen dimbale rek na leen dimbale rek na leen dimbale. léegi na moom nga faral kan <laughs> Bougane. non man nag man nag politique gu ma man. <laughs> du ma politique. naa ko bu bu bu yàgg. Mm-hmm. te du ma wax dellu ci ginnaaw. Mm-hmm. li ma wax leer na. Mm-hmm. du ma politique du ma politique. man moom noonu laa mel. waaw parce que mënuma politique politique doo wax dëgg. boo boo waxee yéen dëgg yi sax ñu dàq la <laughs> politique ma man du ma politique du ma politique kuy tax nga téye ma danga ma bàyyi man du ma politique waaw man politique mënuma ko duma ko def bi may def daal muy bu diine diine mën naa ko defal politique diine ji yàlla ji yonent bi alxuraan mi daara yi ku leen laal ma damm sa loxo ku ko laal ma damm sa loxo su ma nekkoon bàmmeel sax dinaa génn damm sa loxo benn weerante nekk ku bu ma nekkoon bàmmeel dinaa damm sa loxo benn weerante nekk man ni loolu lay clôture man diine laay clôture waaye affaire adduna moom waxuma ci dara waaw waxuma ci dara du ma politique su ma doon politique naa ko jàpp waaye du ma politique mm-hmm. <laughs> xanaa choisir leen ñor réew mi rek mm-hmm. <laughs> dañ leen choisir rek ñor réew mi loolu doom laa jàngal am amu leneen <laughs> parce que gis nga euh, politique dafa sew mm-hmm. politique am na loo xam ne danañ la ko jiiñ sax doo ko def mm-hmm. Mm-hmm. politique dafa sew mm-hmm. mbir la mu sew ruuj boo neexul bët lool doo ko gis waaw kuñ dem nag ba tuumaal la dem ba mu yàgg ñu ne la lañ la tuumaaloon ba nañ ko jeex na tuuma la mais du jël tuuma bu ko jaawale ak jël su fekkoon ne jëfa dafa jël ñu jàpp ko ñu waaw kay waaye dañ koo tuumaal ne ko da ngaa def lii da ngaa def lii da def mu ne defuma ko ñu ne ko yaa ko def danga ko dama lay tëj tëj ko kee bañ ko tijjee dem na kee bañ ko tijjee toog na moom daal li gën a rafet nañ baal Khalifa sàll nañ baal Sonko nañ baal Karim bàyyi ñoom bugaan ñëpp ñu dem rek suñ demee ci terrain bi lu waaye am jël waaw niñ leen bàyyi rek ñu dem parce que boo amee ay ndaw nag yuy góor da nga leen di da jàppale yow am nga ay ndaw ndaw yaa ngi góorgóorlu di di def lu njàmbaar gu ne wax dëgg leen di da nga leen leen wax aw leen góor waaw waaye defee leen ko nii defee leen ko leen ko nii noonu la noonu la kilifay def waaye nag duñ leen xeex boo leen xeexee du sotti da leen di bàyyi ak seen bëgg-bëgg ñu dem uuti ndax ñu ñeme waaye boo leen xeexee boo légee kenn kenn du ñeme ti nag ndaw yi buñ leen xeexee kon kooku fii ne am màgget dinañ jox réew mi man te yor réew màgget du yor réew réew ak ndaw koy yor mag ne ci wetam di ko digal réew ndaw koy yor mag ne ci wetam di ko digal mag mënta daw mënta tëb mënu dara waaye mën naa joxe xalaat bu rafet voilà al waaw ba ba ba léegi macha allah kon noonee ñu ko déggee ay ndaw ñoo yor réew mi kon mu mel na ndaw yi bare nañ ci politique bi waaye oustaz Euh, bu nu signalé rek xëy na am na benn moor démb ci kaso yi ci ñëw koo xam ni Pastef la bokk ñu jàppoon ko ci jamono yi manifestation bi su ma juumul le 27 mai xaw ma vingt 28 ñu jàppoon ko ci manifestation yi démb ñu gis ni dee na ci kaso bi tey est-ce que taxaw jotul est-ce que tamit réew mi jëmoo ci euh, ay guddi gu bër setagul est-ce que tamit kooku nga xam ne ci kaso bi la dee lan mooy nekk àtte mbooba kaso bi yàllaa noonu falay dee yàllaa ñu fala atam di yam yàlla nag laa wax qul inna al mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum yàlla ne na dee mi ngeen daw day dajeeg yéen da ngeen dajeeg dee da doon dem kaso ba pour daje faak dee lii problème bi kay mooy lu tax ñu tëj ko looluy problème bi waaye kanta dee gi moom kenn du dee sa dee jotul koo gis mu dee deeyam jot nit ñi nag ñoo mel noonu liyee ko ko rey dañ ko liggéey dañ ko def lii dañ ko rek la ngay dégg waaye ku dee sa sa dema jot qul inna al mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum suma turaduna ila aalimil xaybi nag wa shahadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaloona ñu yóbbu leen ci yàlla nag mu leeral yàlla leeral li nga nekk woon ci àdduna yëpp nga ne taa faax wala mu leeral li nga nekkoon ci àdduna yëpp nga ne pat loolu yaakaar nga ne si man de rek ñàkk jom aji demoon ko lan nga leen di wax ñoom ñi nga xam ne ñoo ànd ak ndax dégg nañu nga wax ñenn ñoo xam euh, euh, ñu sañoon mooy nekkaat ci bopp mooy seen candidat. waaw lan nga leen bu ñu sañoon mooy nekkaat ci bopp réew mooy seen candidat waaye sañ jeex na. mënuñ nee leen sañ ma bàyyi na seet leen ko sañ ah amul amul amul leneen ah, loolu jeex na. <laughs> Uh-huh. sañul bu jeex bu sañoon. Eh, eh. sañu ma. ma ngi leen sañu mu jeex. ah loolu rek la amul leneen. Mm. parce que gis nga eh, nit ñu xam leen baax na. bëri na ñuy jooy di saalit. seen intérêt bopp dong la ñuy jooy. seen bopp lañuy jooy jooy luñ mag seen bopp la jooy jooy luñ mag seen poche seen pochette moom la ñuy jooyal. Mm. waaw ndax bu fekkonte ne li ñuy woote dëgg la. mag yi duñ ko gañe ci maire yi. Macky duñ ko gañ ci député yi député yi ñaar rek la am mhm. te bu duwul kooku dem uh, fekk kon kon du dem mhm. Mhm. waaw léegi yow nga ñi jooy di yoo booba ñoom ñu ngi fi lu tax góorgóorlu ñu am am député yu bari lu tax góorgóorlu nga gañe maire yi mais yow nga gañe maire dem ba mu yàgg ñu nanguwaat maire yi sa loxo boo ko boo deful lii lii mu def su ko deful du sotti yuux yi yëpp mënta ñàkk yooyu mënul ñàkk yow moom mënta ñàkk yooyu yooyu yooyu yoo ko fii yooyu yëpp mënul ñàkk pour pour ñu defee ni gëm na la pour ñu defee ni Macky bëgg na la nga di la am na ñoo xam ne bu ñuy jooy dañuy defaat nii ba xam ne ñu leen di xool wala xool ñu leen di di rey ba cëm voilà moo <laughs> nit daal dafay dëggu rek dëggu daal moo baax dëggul dëggul dëggul waaw koy ànd ànd lak moom ci yàlla su yàlla jeexee nga bàyyi ko waaw fekk yàlla nga fa ànd leen waaye boo gisatul yàlla bàyyi ko rek loolu mooy mi manifestation yu métti yi nga xam ne xew na bi am ay bakkan yoo xam ne rot na ci moo waral mu ragal la bokk ci nga xamante mooy euh, présidentielle ndax amaana bu ko bu déclaré woon ne dafay bokk ci présidentielle yi naa jur lu gën a métti ci réew mi euh, ñu weesu dafa dañ ko xoj wala bokk euh, dañ koo xoj koy def sago la ko defee gis nga ne am na nit ñoo xam ne boo leen jiitoo ñuy defee maa tey da leen def maa tey tey waaw ah. ah jiite ngay nit ñu def maa tey bañ gañi la gañi lañ ko mën a tuddee ndax am na loo xam ne ku daan am dam nga ba mu yàgg da amatoon dam nga mujj ah kon ko maa tayaat nga nga indi yow maa tay waaw Macky Sall boo ñu ñu loxoom dammuñu loxoom defuñ dara nit la ndax waxoon na ne danaa wax mm-hmm. wax a jot xanaa comme ba muy wax dama danaa wax dañ ko xoj mu ne danaa wax. Mm. ba muy wax danaa wax dara xewul. Mm. danaa wax waaye wax jotagul. waaw sama wax jotagul. candidat troisième mandat danaa ci wax waaye duma ci wax léegi. Mm. parce que yàgg na ko wax. ba mu jotee nag wax na ci jeex na. léegi daal loolu dañ ko war a leem ba mu jekk nii. def ko ni dossier bu ñu leem leem ni la laxas ko ba mu tekk takk ko ba mu dëgër. roof ko ci suufu laal bi jooju wax jeex na. ñu ñu wax ne. moom daal na dimbale Khalifa Sall mm-hmm. na dimbale Sonko na dimbale eh, Karim Wade bàyyi leen ak ñoom bugaanu ñëpp mm-hmm. ñu dem liggéey mm-hmm. ku ku yàlla tudd rek nga dem ku yàlla tuddul doo dem gis nga yàlla yàlla mbiram dafa doy waar su ko neexee eh, kiy doon président doo ko foog ci coow du jib coow du jib waaw waaye réew boo ko jiitee ma Macky maa ngi koy jaale di ko sigil digaale bu baax a baax ci ñi nga xam ne joge nañ fi euh, ndaxit ni mu ñu jaalee lañ ko war a jaalee waaye itam euh, am na loo xam ne daal ku ko gis ci sa njaboot réew mi nar a takk réew mi nar a am problème te mu nga man ci dara te defoo ko da yàlla na yoxe yow moo tax mu mën na ci dara waaw bi mu waxee loolu dégg nga coow bu noonu troisième mandat la jëm nooy def loolu réew mi day tàkk mm-hmm. kooku moo amul amul problème moom xam na ko sax mm-hmm. waaw xam na loolu waaw mais gannaaw man man naa man naa maîtriser loolu man koo téye ma def parce que maay maay maay njiitu réew mi ma indil sama réew jàmm bët bañ ko daan xool ñu di ko xool dañ eh, ko doon tuddee ñu tuddee ko ndax Sénégal réewam teraanga lañ wax waaw ba dem nañ ba dem nañ ba léegi réewam tedd di la mm-hmm. waaw réewam tedd di nag boo ko bëggee defaraat da nga koy indiwaat ci teraanga rek mu jeex dina dina dina def troisième mandat troisième candidature am da koy bu ko demandé wul moom mu bàyyi politique bi nga xamante ne président génn na euh, wax ni du bokk mu daal di waxaat ni buñ ko bàyyi mu dellu si ci li nga xamante ne décision ñaari wax yooyu <laughs> waaw loolu waxi la rek mm-hmm. waxi politique la rek da ngay tànd rek mm-hmm. da ngay tànd fii ba xam mooy li ma la wax bul di gaaw a wax rek mm-hmm. moom daal lu mën a am i wax na li muy wax rek ci lañ leem dossier yi denc mhm. buñ ko sulliwaat bés bu ko yëngalee mhm. ki ko ko dugal ci yëngal mhm. boobaa na métti trop ci réew ndax lii fi am mosu fay am te dañ doon bële du fi amaat war bu ko gën a métti ñëw am fi kon nag bii ñëwaat mooy gën a tàng téeméeri junni yoon su nga yàlla su rëddee nga far mu rëddaat nga far booyee boo nga bañ a rëddaat booy rëddaat bu bu bu bu doon daatee da lay rey. rëdd mhm. sa kaw ba xam koy far kenn du ko far. wallaahi waaw yàlla rëdd na mhm. nañ topp ci li yàlla bëgg. Mhm. wan nañu lu leer ne ah seen réew a ngi tàkk de. li koy taal nag leer na kii bu waxee lii bu ne premier euh, danaa dem troisième mandat réew mi tàkk su ne du ma dem troisième mandat réew mi fay kon Barthélemy Dias li mu wax ah wax waxi politique bu bu bu amee nangam nangam bu amul nangam nangam far amul. mu ne bul delluwaat ci la ma wax ok wax la rek. Eh, Oustaz di jaajëfal xam naa juste dañuy terminer ak euh, ablaay fay wala Pawlish mbay mu mel na fan